wax loolu mais bu dul loolu nag mun na ko bàyyi aussi pour des questions humanitaires xam ne nit ki feebar na te état de santé am ak xëy na ci gis-gisam moom juge bi sant mu am rapport sax àndul ak détention carcérale wala seet ni ko fa bàyyee xëy na mun na egg ci état boo xam ne mun na lor si moo loolu nag ci juge bi la aju boobu ba tey Serigne Saliou ñu ngi axtu ci wàllu wérgu yaramam tey ndax am na lenn lu war a tee ñu may ko bàyyib ndiganiku xam nga la justice d'abord elle doit être humanisée parce que ñun je crois que bu ñuy wax justice mhm. c'est pas pour xoxatal nit ki justice c'est pour régler un problème mais nit su demee ba yaramam na xare je crois que il est de la responsabilité d'abord du juge ñu war ko mën a may liberté provisoire mhm. d'autant plus que ay euh, kii euh, ay euh, documents médicaux wax na ne moom yaramam neexul loolu sax depuis le départ parce que maa ngi fàttaliku son avocat évoqué woon na loolu dès le départ mais le juge n'en a pas tenu compte mm-hmm. te lu ci grave mooy ñaanuñu ko yàlla bu suba bu ci leneen amuloo si la responsabilité morale du juge dafay engagé wu mm-hmm. donc à un certain moment je crois que aussi dama xamul ñoom lan moo leen tënk est-ce que dañu war a recevoir des mots pour mën a décerner ay liberté ou de toute leur indépendance pour mën a joxe une liberté mais Bougazelli mm-hmm. regardez tey dafa waxoon nañu wax ne yaram dafa naqari les gens n'étaient pas contre parce que mais tey les gens se rendent compte que en réalité kooku taxawoon ne yaramam dafa naqari gis nañ ne en réalité dara jotu ko ba dem na sax ba naan dafay bëgg a présenter candidature am à une collectivité territoriale mm-hmm. donc tey il ne faut pas aussi que la justice fasse preuve encore d'une justice à de vitesses mm-hmm. li nga xamante ne moom nga accordeel Bougazelli mu toog teg ci biti di dem bay menacer sax gendarme yi nga xam ne ñoo ko doon interpeller je crois que tey jot na aussi Simon ñu réfléchir sur son cas il est sérieusement malade et bu fekkee ne ni da nga dem ba nga xam ne da nga feebar waratuñu ñu ko bàyyi dans des conditions de détention quand même assez inhumaines. Mm-hmm. et je crois que il est aujourd'hui de la responsabilité du juge mu bàyyi ko mu génn mu dem faju ji suñ ko waree inter jëlaat ñu jëlaat ko mais comme que moom fi nekk nii yaramam vraiment sutante na nañ ko bàyyi mu dem faju ji balaa ci leneen am mhm. euh, euh, Fatou Abdou euh, responsabilité juge bi la waaye ndax juge bi jot na ci document yi nga xamante ne si la war a sukkandiku ndax boobu ba tey ay kàddu la ñuy dégg waaw kàddu avocat maître Ba moom moo wax ne client am dafa feebar te client wam peut-être joxe na lépp loo xam ne moom mooy wane na dafa feebar. Mm-hmm. parce que juge bi comme ni nga ko waxee le juge d'instruction wala le juge des libertés et de la détention ñoom ñoo am sañ-sañ. joxe li nga xam ne mooy bàyyi ko ko dafa bokk nag ci disposition yi nga xam ne moom la suñu yoon di ne bu du woon loolu kon ni ko Serigne Saliou waxee duñu ko jox Bougazelli bi nga xam ne mu ngi doxi soxlaam. Mm-hmm. di waxu politique. ak di wax li këram mhm. ak njabootam moom moo tax dans cette affaire man gis nga sa fait mal sax ngay institution mel ne justice xam nga Barack Obama dafa waxoon ne Sénégal Afrique am nañu ay nit yu fort mais dañu amul institution yu forte mhm. loolu je pense que gàcce la war a doon ci Afrique ñu jël suñu institution yi nga xamante ne tey ku ko ŋaññi aussi bu ëllëgee moom mooy lay taxawal ay magistrat ñooy taxaw nga prêter serment ay juge ñoom ñooy taxaw tey lépp loo xam ne am nga ko de dossier ñu layal la ba tax na justice bi ñu ñu ko tilimalee xadi gàkkal ko li des ngal la ci li nga xamante ne ngooy nguur Macky Sall ñu def ko mu tëddee ñaaxaanaay et ci dossier yi mel nii la koy xaar parce que ni ñu ko waxee Simon ndaw la il présente toutes les garanties mhm. maanaam dafa feebar la ñu wax mhm. nañu ko bàyyi mu ñibbi ci këram nga la gàcce bañ cee dab réewu Sénégal parce que gis nañ fi le ki nga xamante ne moom moo moom euh, kii nga xamante ne moo kon président Tchad maa maa ngi juum. Euh, Hissène Habré merci Mansour. Mhm. Hissène Habré ñaata yoon la laaj ci bàyyitu Ndékéndoukou keroog bi nga xam ne faatu na euh, di nga xam ne li ñu koy tuumaal dañu ko jugé ne moom la. Mhm. parce que li ñu ko joxul kenn jox ko dëgg ci li nga xam ne moom la ñu ko jugé mais humainement. ñu bari keroog am nañu gàcce ndax dafa laaj ci bàyyitu négandu ko joxe ay garantie que dafa feebar ñu bañal ko ko ba bi mu faatoo le ministre de la justice génnee communiqué di tontu ne Covid 19 faatu ko bi muy faatu leneen moom moo ko faat et que du ci fi nga xam te bërëb bi ñu waxoon la. Mhm. justification yëpp nga la bu ñu ci yegg ak ay ndaw yoo xam ne dañu mës a engagé wu même bu fekkee engagé ñu pour le président Macky Sall même bu fekkee dañu engagé woon pour xeex le président Abdoulaye Wade ay jeunes lañ yoo xamante ne li ma jàpp moom mooy dog-dog ku ne lay dab. Mhm. et que loolu kenn du ci rafetlu seen taxawaay que ne ay ndaw lañ yoo xamante ne waruñu leen woon a tudd parce que li ñuy incarné c'est le nouveau type de sénégalais mais su fekkee dañu wax ne dañu feebar ngal la feebar boobu nañu ko jël gëm ko. def li nga xam ne moom la Serigne Sall wax léegi humaniser la justice aujourd'hui sénégalaise bàyyi leen bàyyi négandiku ñu présente toutes les garanties bu ëllëgee bu ñu wéree ba ñu xam ne mën nañu wuyu ji ñu wuyu ji mhm. te ñu jugé leen te ñi nekk ci kaso yi fees fa dell te amuñu ku leen waxal amuñu journaliste yoo xam ne dinañ la tudd ndax xamuñu leen amuñu mbokk mu def conférence de presse ñu jugé leen bàyyi la ñu bi i mbokk loolu bokk na ci respecté ñu ne dafa feebar nañ ko may liberté provisoire ndax du dem ba nasaxal wala gën a fragiliser suñu justice. non liberté provisoire non liberté provisoire si ni askan yu doxee. ndax lu lu ci ëpp doguma la mais lu ci ëpp ay way politique la ñuy jox liberté provisoire bu ñu duggee quelque temps ñu ne dafa dafa dafa wopp. xadi liberté provisoire daanaka farata la Sénégal xam nga leen moo tax. kaso boo xam ne ñeenti junniy nit moo fa war a nekk ak su lëf mhm. ñu def ci fukki junniy nit ak nangam yaa ngi dugal nit ki ndax dafa dafa yaa ngi dugal nit ki kasoo xañ koo liberté am mais yow yaa ngi jalgati parce que yow yaa bind ay charte yoo xam ne danga ni nit ki bu ñu ko xañee privation de liberté mhm. ci condition bii la war a nekk moom moment bi mu nekkee ci détention mais yow mu nekk kooku nekku ci condition boobu kon déjà jalgati am na déjà moom yi yow li nga koy toppee am na yow tam lu la sa conscience yi toppee ak doo weddee textes yi nga xam ne moom moo bind liberté provisoire Simon fan la mën a dem il est malade bu ñu waxee dafa malade da nga koy gëm parce que sinon du ngundum doo ragal. dafa feebar feebar ak fitna du ñu benn Fatou wax na ko nattu dal na leen bu ñu dugg ci lu ñu war woon dugg muy nattu bu leen dab ci seen dund. mais bu ñu nee dafa feebar ñu demandé liberté provisoire bu ñu ko mayee Simon mu dem faju ji Simon fan lay dem fan la mën a jëm foo xamante ni bu ñu ko soxlaa bu nekkee France bu ñu ko soxlaa dafay ñëw parce que la indi Assane Diouf indi keneen ku dul Assane Diouf. tëwul pour ñu indi Simon ci buñ ko soxlaa te mu bëgg a të mais tey ñaata nit ñoo nekk ci biti ñu am liberté provisoire daw ñu daayuñu saa bu leen justice soxlaa dañuy dem wuy ji mais système boobu nañ ko gis nga kaso kaso nit du ko def arme pour di ko duma ay nit mm. surtout kaso boo xamante ni méngwantewul ak lu jaadu nañu xool nu mu gën a yombee nu mu gën a rafete et pouvoir executive xaw ma am na ci taxawaay wala amu ci taxawaay mais li lay rasul na bu fekkee am na ci taxawaay juge yi dañu bëgg am conscience tranquille mm-hmm. ñu ëpp ci ñoom jàng nañu diine ñu bëri ci